yes yes ah gars yi maa ngi ni bëggee di bëggee sama fan yi ñi nga xam ne dañu bëgg njàpp ndeysaan ah Sénégal di leen nuyu di leen wax nag namm naa leen franchement ah di nuyu sama fans si di nuy aussi sama dëkk waa Kaolack di leen wax nag gis naa message yi mënuma tontu ñëpp mais gis naa message yi ah gis naa ni ngeen may félicité waaw vraiment Kaolack tamit nuyu naa leen ah sama xol sedd na kontaan naa ñi ma tontuwul ñu bañ maa mere gis naa message yi di leen wax man tamit maa leen gën a kontaan franchement sama xol sedd na bëgg naa ñëpp waaw yàlla na ñëpp am jàmm vraiment bi kenn law ko ki tey Dakar la ma delloo de xar bi xar bu am jom la. waaw. foo teg loolu yow. ci bu ñu am sidit. xaru lu sa bënd métti. xaru Dakar da ngay gis xar mu xëyee Kër Masaar dox ba fi ba Pikine <laughs> benn dimitari jënd ko nga jënd li xalam tëri noonu la. li xalam tëri noonu la. karaw ga day bari lu mën a dox dox di bari. a a ba nga ba léegi dégg nga xam moom la. ndax man dañ leen di ci suutee ak yooyu. mu doon xaru Sénégal la. xarit yaa ngi naan tëral ah. xaru xarit yi xam na li xaw. xaru Sénégal nag. xarit ba noonu

benn bi dara jënd ko nga jënd ñaari kilo sibit ak suñu ko xëy dem hôpital li xarum tëri noonu la li xarum tëri noonu la xaraw ga day bari lu mën a dox dox di bari dafa boole mbéy yi bari mooy neex ko neex a jëf xarit kon duñ mbéy bu wax xarit ba nga ñëwee ba léegi dégg nga xaar mu ndax bu ma dañ leen dëkk suuf terrain yeeg yooyu mu doon xaru Sénégal la xarit yi ay lan tëral na xarit yi xam na li xaw xarit Sénégal nag danoo mee ba jeex <laughs> man dafa mel ni hygiène de vie du <laughs> dëkk bi da koy la. da koy espace la mais gars sedd man maa ngi def sama t-shirt. mais Niass xoolal fi ma gàmm. yow lu oyof nga sol yooyu. barke li mooy li mooy. dama ñëw lu tax gars yi naan non bu leen dem foofu dafa sedd. dafa sedd mun ngeen dee ay moyen deux moyen quarante ba pare sedd bi ngeen sedd sama réew. <laughs> sedd boobu seddu dentiste la day buddi bañ <laughs> moo ñëwee ba léegi maa ngi correct di Castaméro sama bëñ normal mais bu doon Sénégal ña sag mi ne mu ne ma yoroo doole paaraay <laughs> sama bëñ yaa ngi dina faar sama bëñ yaa ngi sama sama sama foos yi may dina faar keroog ni tëll tànk ba damm la sedd ba ca suuf lay jóge waaw sedd sedd baa doole la sedd bi day day maintenir ca kaw lay jóge géré ba pare bàyyi ñun teen yi changé wul de suñu karaw yi ñoo ñuul parce que naaj bi day xonkal karaw <laughs> dëkk bi da koy extraction la maanaam xoolal fa lii rek xoolal fii bi mais maanaam amu tayas wala doo romb ko fii da ngay ñëw mais romb ko amu tayas wala doo daan non ak ku <laughs> romb ko bu ay bu doon yoof Yoff. non fii xam nga Ndiaye. waaw waaw waaw noo dëkk man ak yow Yoff. dëgg la c'est important fu ñu dëkk ak armée Yoff. waaw waaw c'est important. mën ngaa toog 5 minutes yoo déggul àll Mor Ndiaye dee na wala Absa Soumaré dee na nekk da sonn ko rek ñàkk du métti. barke amoon tubaab day autopsie. non non loolu mënut a kàddu yaare noonu. fii yombul dee nga bëgg wax. non fii gars yi dee dem booy wax na ma nee na fii yombul dee. fii dee mooy dem na ba tubaab bi amatul pexe. maanaam xam na ne dee wala arrangé mu bàyyi la nga dee. mais dama dama bëgg ñu dem Milan dama bëgg ñu dem Milan. waaw pitax yi. waaw dañoo war a jël mboq def suñu loxo tax yi foofu mooy doomu doomu doomu boo ca tegee ni ba pitax taxaw dee sa loxo yi noonu la lay cambiyaale non tubaabu fii pitax dañu fay bar mooy fii nit pitax euh, yi lañ gën a fonk ko doomu aadama yi boo fi laalee pitax ba mu dee sa loxo dina la dugg ci GP nag boo ñëwee doo dugg sa vol bés si foire ngay wàcc eh, ah, tas baat takki ta tar ta ta tar biit ca biit ca biit ca ko takki jar e ta ta mais mais eh boo yaa ngi làkk italien de saay foofu <laughs> nga baal dafa a version mais maanaam keroog dañu doon didi keroog dañoo dem nga changé fecc yow faaf daawoo feccee nii eh waxuma loolu de keroog dañoo dem dañoo dem titi ba fee Brescia nga changé fecc te yow Five daawoo fecce nii. Sénégal diwlinu mbay gi la. day ay force ci na ngay naaw. da nga changé ah, dëkk bi dëkk espace la mara. ah ah. tubaab dina ko fi jënd nag teg këram def ko foo de fleur dafa garabu koko.